parce euh, ñu dugg ci beneen point mi affaire Saint-Valentin bi ñu dëgmal nii bi ñu nekk nii sax. novante gi feet feet bi ñuy feetal mbëggeel mais dafa am ñu siy dugg ñoo xam ne dañ ne seen yoon nekku si mi célibataire yi am na ñu ne célibataire warul feete Saint-Valentin. waaye moo am nga nag célibataire moom ku amul gel. am na gel daa amul jabar xanaa. ah déet kaay nag ku am koy bëgg da nga koy neexal nag neexal boo neexalul lu sotti de xanaa xamuloo ni. ñiy jënd kado mustafa ñu ci bëri mënuñu ko de mais dañoo bañ ku leen fitnaal parce que xas na ancré wu ci xol yi xel yi mënatoo ci dara ndaw soo fi koo dégg mu ne duma ko jënd day sóob rek wala yaa ko dékk micro rek muy sóob bu ko gelem seetaane ne ko yow yaa waxoon loolu lii nag non booy dafa ko dóor rek ma dóor ko ko quoi foofu lay jaar yëfi dof yooyu daf ma ko dóor ma dóor ko ko quoi luy loolu mbëggeel Moustapha am na waaye raar na de mbëggeel am na mais raar na euh, dañu wax ne boo sëñ Babacar da daan wax ni soo joxee sa kàddu ci jigéen wuy juram ba ñu di la fa xaar pour war laa may nee na benn góor gu ko yëg dootu fa dugal dërëmam kon nee na de ko jàppale ba ba farata di am ndax dana dalal xelam ki ngay bëgganteel defal ko dara newu ci parce que day dalal xel day dëgëral yaakaar li tax sunu borom di jiital xiin teg ca dënnu teg ca melax day dëgëral yaakaar ñoroñ bagage yi yaakaar dana taw kon ngoro day am dënn am melax am ngalaw te mooy koo bëgg ti namm ca farata farata laa wax ne man waxumaa ay tàppali koo bëgg ti namm ca farata dee ko jàppale ndax danga tax kenn dootu ko defal ti jàppale day dëgëral yaakaar sëriñ Mansour borom daara ji nee ku bëgg ci dara ju mën a doon dara te dara ja nga bëgg jaralu la dara doo am ca dara ja dara dëgg la kon kii ngoro ñu ne tey di bis la boo xam ne dañuy confirmer mbëggeel yi comme ni ñuy yeesalaatee permis yeeg dañuy yeesal permi mbëggeel aywa te boo ko yeesalul mën na yàq te du ngeen moykati yàlla bisu tere la te teralal ki nga am wàññiwul dara gannaaw bisu tere la rek mais bu dee nag la ko lal du mbëggeelu farata ak caay-caaya ko lal amul fu muy baaxee amul fu muy baax koo bëgg dimbale ko dara nekku ci mustafa koo bëgg jàppale ko dara nekku ci Moustapha daa muy jouru Saint-Valentin ak du jouram gis nga nag mbëggeel du at at lañ koy feetal nag at ak at rek ngeen ne ko maala bëgg mu ne maala raw fleur yaa ngo ngeen jógee ci ba déwénati ah non loolu dundalul dara loolu day rey garab gi di garab dañ koy rosi suba ngoon waaw garab dañ koy roose suba roose ko ngoon mool boo moolee mool yu tooy da ngay xëy fajar roose su guddee bu bu timisee nga roose mool yu tooy mooy ngorom Moustapha rooseel Iran ñu daanele ci laaj bu mujj bi mooy léegi dañoo gis ne foogoon nañu jóge na fi sax maanaam bëgg nit ñu naan laan géer la géwél la tëgg la duñ la ko may xale yu bari ñu ngi jànkoonteeg jafe-jafe yooyu jamono ji loo ciy wax. waaw man de li ma jàng ci alquran mooy ku yow di jarul may jabar. a tayi boona daal di tayi ku yiw daal ci góor na wuti jigéen ju yiw wa tayi baatu li tayi jigéen ju yiw góor gu yiw waaye alxabisoona lil xabisaati wal xabisaatu lil xabisiina yàlla ne jigéen ju yiwadi pour góor gu yiwadi la góor gu bandi pour jigéen ju bandi la kon man li ma jàng mooy yiw ak yiwadi Moustapha ñëw na di nit ku yiw am na jom am na ngor nangu naa liggéey bu la ñaanee jabar loo bëggati jom bëggul ku ko yab am na ngor deretam baax na am na diine lu ci des mat nga mat nga sëkk ku ñàkk jom moo dul nawle ku ñàkk diine moo dul nawle ku ñàkk deret moo dul nawle waaye nag su dee géwél baatu géwél ci cosaan mooy ko xam di wax ñu def benn géew wër ko walla mu ñëw ñu ne def leen géew géewal leen ko ñu ne géwél foofu la jóge mooy gàmm yi may dem di gàmm ñu géewal ma wër ma loolu géwél rek la di conférence ma ne ci digg bi gaa yi wër may paccacaci rek loolu géwél la di <laughs> bokkul ak nag ñu tëggi sabar tëggi ndënd yow itam Moustapha nga bokk tama wala nga ponk ponkalum dënd gàddu ko sol sa caaye juree yaa mati génne ca boor bu moom itam sol séram ba ak njiit laayam ngeen daje ci digg beeg tama ji ngay tulli muy naaw ngay tulli muy naaw ba ba mu ne ba mu ne ko saay nga ne ko tuy ngeen teñu xante yow sa doom kay mën naa se ak doomu yaa mati yéen ñaar waaye man sama doom du ko takk parce que du genre am fan ki xaw ma taabale ko ma tax takk leen seen genre kooku du genre waaye Moustapha muy yiw am ngor am diine am jom kooku may ko sa sa doom parce que ku la yoral nga bëgg loolu lañu bëgg su yooyu dajee baax na géewal mooy loolu ku toog di wax ñu wër la ngay leeral di wax lu baax tëgg métier la am na yeneen bu ñuy wax daawo de métier am soo demee ci alxuraan saar wu tudd tëgg mu nga ca sóoratu xadiit menuisier métallique tëgg la di ah day tëgg bu bari doole rek menuisier métallique tëgg la mokki ci marto bi ci mbaar mee yam lu tax nga may menuisier métallique sa doom mayoo ko boroom marto bi danga naan kii daa bëri li wul rek daawu dem mit ci tëgg la yoroon wa àlla na lawul xadiida alxuraan la ci la daan defar ay jaasi ay ndaay weñ ay xeej ay mbubbi weñ pour ñuy xeex muy benn su fekkee danga ne doo may sa doom lawbe menuisier bois lu mu doon lawbe la ndax ci bant lay liggéey bii daa gën a néew doole bële rek nga jël menuisier bois may ko sa doom ba pare ne ma Ira duma la may jabar parce que marto kii bi ma yorata xàccukaay gi menuisier bois lawbe la te yonti yàlla daawuda méccam la was na il fulka bi ayunina alxuraan la bato bi mu duggoon rawale boppam ak ñi mu amoon moo ko liggéey nga indi ma uude wa xaasifu naalan ma alqadami yenent bi ëw na ëw dàllam bu dogee moo koy ëwal boppam te directeuru bata xanaa koo koy chefu uude yi te bu la ñaanoon jabar nga may ko kon kay da nga naan borom puso bële daa bëri li rek moo tax doo ko may jabar mais waa bata uude lañu di am déet waaye moom lañ nga naan non hmm, waaw <laughs> ay uti lañu parce que dañuy ëw rek ñiy kuuseeg yëpp ay ci lañ ci la ñuy dugg kon donk métier kenn du ci xeeb ñuñ dañoo am métier kon tëgg lawbe euh, ak ban géwél xam nga xam nga baatu ñeeño mooy lan ñeeño mooy lawbe ak tëgg ak uude parce que dañ daan liggéey di sañse ñu tuddee leen ñu ñu ñeeñi ñu ne ñu ñu ñeeñaa nga de ñu ne ñeeño yaa nga parce que ku liggéey mën a solo dañ daan liggéey di sañse ñu tuddee leen ñu ñu ñeeñi ñu ne ñeeño yi loolu indi baatu ñeeño yambar mi ci taatu garab gi nag di xeebaat ni yii giira moom moom solul daal gisoo maraakisam yi ni mu ŋaangee waa ji dana ŋàpp ni boppu mbott ba bopp mbët ba bopp jësit di xeeb ñépp di kat bu fajee soxlaam ñi muy xeeba ko ko fajal moom moo xeebu. kon ay tappale la rek. waaye yow waxi caaxaan la la indi naa la ko ci alxuraan kay lu yàlla wax loo ci man ku yiwa di daal bu ci dugg bu ci dugal sa doom ku yiwa di ci dugg bu waaw waaye ku yiw dara nekku ci. oustaz Iran lan ngay tàggatoo lan mooy doon sa kàddu gu mujj. man de sama kàddu gu mujj rek mooy. ñu indi dal ci réew mi te xam ne Sénégal sunu gaal 24 gaal na ku ci ne te boo daanoo ci ndox mi kenn du la génne bu bu lànkal xamal ne boolewul na ci gaal gi sunu gaal sunu.